ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ñu fas yéene del si haat ak yéen ci kartan ak yàlla ci seen darse bi di ruhul adab ñu baaxoo ko ànd ak yéen aljuma ju jot ci waxtu wi yaakaar naa nag tey jii mooy doon mu suñu darse ci ruhul adab de ndax tey la ñuy tëj téere bi ñu ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp mbooleem li nga xam ne nañ ko ci téere bi ki koy wax bu fasaahu di dee ki bind يلا يلا دفال نيو اك ديغا اك توپ سي بركه شيخ ابراهيم نصر الله عنه باي موغي تاهوون ريك سي كيروك دي واخ اك نون سي واخو كيغا خامني موي سامان بامبا سي لا واخي ووني وقد قال في هذا المجال الامجد قديم تاه مالك يو احمد بيغا خاميني لولو خيونا موني فلست فليس يكسب سواد الجسم بلادة الفتى وسوء الفهم léegi nag ñu ngi dalee rek ci tey muy wax ne yaa rabbi yaa rabbi bi jaahil haadi fakuffa anna kulla sarrin aadi mu ne yaa rabbi e yow suma rabbu bi yow suma rabbu bi bi jaahil haadi ci daraja yi ki nga xam ne mooy gindi bindee fi fakuffa anna yal na nga fegal ñu kulla sarrin bépp lor boo xam ne aadi ñu ngi bàyyeekoo ci ñi nga xam ne dañ ñuy noono mu ne mun na alayna bi kamalil irfan mu ne yàlla nga tebbuñu rek li nga xam ne mooy xam yàlla bu mot amin ya rabbi mun na yàlla nga xiiwal alayna ñaal ñu bi kamalil irfani ci xam yàlla gu mot wa kulla maqubin ak lépp loo xam ne xemem nañ ko mu ne lépp luñ xemem rek yàlla nga ñu ko defal bi xayri adnaanin mu bàyyeekoo ci yiw bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ca ko jega adnaan nga kooku mooy sa ibrahim radiallahu anhu legi nak motax bay wakak, mu ngi wax rek ne fastur ayubana bi sidrikal jamil wa wa nabi qahrikal jalil fastur yalla nga sutural ayubana suñ ayibi yep bay mu ne yo yalla yalla nga sutural suñ ayibi bi sidrikal jamil ci sa sutura sura fatside wa qahar yalla nga not wana suñ noni bi qahrikal jamil ci sa notel gu rafet ga mu ne suturaalal suñ ayib yi ci sa sutura su rafet waaye mu ne yàlla na nga notal ñu suñ noon yi ci sa noteel gu rafet ga ci la bay waxee ne walhamdulillahi walhamdu cant lillahi li yàlla rek la ñaal yàlla mi nga xam ne xad awla moo méngoo tay sira yo nazmi yombal sama woy wii mu ne run téerig bii nga xam ne bind naa ko mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom moo moo yombalal woy woy wii fa huwa moom yàlla moomu ni ma baax na al moom ki nga xam ne moom méngoo mbiri yëpp suma ginnaaw loolu asalaatu julli ma taslimin bu ànd ak selmal ma a taslimi salaami na wàcc ci yonant bi al mustafa ki nga xam ne moom lañ tànn ca xaalamul arwaax xayril anaami ki nga xam ne moo gën ci nekk teef gi xanaa moo tax bàyyi wax ko beneen yoon wala abdu aqan wal anaamu habiduhu mu ne yonant bi alayhi salaatu wasalaam moom rek mooy jaamab digg bi mu ne waaye mbindeef yëpp ay jaamam lañ de léegi mu ne alayhi yal na wàcc ci yonant bi wala ali ak aloom gi muy ñoñam gi wa sax bi ak xàndandoo al abraar ñu baax ñi maa faasa mbeeg texe na bil irfaani maa faasa ndem texe na bil irfaani ci xam yàlla kulla sabaarin bépp mu ñaakoon maanaam faasa texe na kulla bil irfani ci xam yalla kulla sabarin bepp kul sabarin bepp mu ñaakoon mu li nak yalla yàlla nekk ci mom rek ma faza bil irfani kulla sabarin feek ñi nga xam ne ay kat lañ ñu ngi ñu ngi ñu ngi texe rek ci xam yalla kon lolu mo doon jeexitu ruhul adab ñu ngi leen di ñaanal yalla di di ko sakku ci yeen ñu ngi wax ne sha allah ñun ñep ñu góorgóorlu ni ki bay sonne hon talif tere bi talibe yi tafta ñep nañ sonnee noonu ci bàyyi xel li nga xam ne moom la bàyyi doon jàngale buñ ko waxee daal ci gàttal mooy ne njëlbeen ak téere bi ba jeex li nga xam ne mooy yar ak teggin ci tariixa ak ci fayda bi lépp Cheikh Ibrahim jàngal na ko jàngale na ci tamit melokaanu taalibe ni mu war a mel waaye jàngal na itamit melokaanu sëriñ ni mu war a mel wax nañu jikko yi nga xam ne buñ ko gisee ci nit jàpp ko muy ab sëriñ loolu yëpp Cheikh Ibrahim jàngale na ko. ci biir loolu jàngale na ci taw tawhid jàngale na itamit fonk sariya jàngale na tamit tarixa tijaan ak ngëneel yim am wax nañu itamit seexu tijaan ak dayoom yi loolu yëpp nag bu dajee ñu jeexale ko tey ci ay ñaan ñaan yooyu yëpp yal na yàlla nangul ñu ko te nangul leen ko nangul ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ci téere bi yal na bu nekk mu jub téere boo xam ne ñu ngi koy firi ak yéen waaye yal na yàlla defal ñu dégg defal ñu topp mbollem haraf yi nga xamne mom la Cheikh Ibrahim tëggee téere bi haraf bu ci nek rek yalla ko yàlla wàcce muy am ngeenel ñaal ñu ya rabbi kon bayit yaangi nonu ya rabbi ya rabbi bi jahil hadi fa kufa anna kull sar ghadi munna alayna bi kamal al irfani wa kull marxubin fi bi khair adnani fastur uyubana bi sidrikal jamil wa qan adwana bi xaariqa jalil الحمد لله الذي قد أولى تيسير النزم فهو نيم المولى ثم صلاة مع تسليم السلام ثم صلاة مع تسليم السلام على نبي المصطفى خير الأنام عليه والآل وساب الأبرار ما فاز بالعرفان كل سبار يا ربي بالذات وبالصفات فكلنا في شعر الحالات سبق قلوبنا على الإيمان على عمل الإحسان انظر إلينا وانظر أن ديننا أدي حقوقنا وأدي دينا وهب لنا ذرية مبارك تكون لله بلا مشارك ويسي كل من إلينا أحسن وجازينا جزا أحسن بالمصطفى سفيا يوم المسر خير الورى من قد هبي بالقوسر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والقاتم لما